mu ne nag bu fekkee na ngaa bari ay bor mu mel ne itam daal ab dund dalaa jafe kon fexeel ba booy génn sa kër ba booy génn sa néeg nga wax bismillahi irrahmani irrahimi xala nafsi wa diini bismillahi xala ahli wa waladi wa maali mooy maa ngi tàmbalee ci turu yàlla tey sàkku ci moom mu dimbali ma ci li ma jaaxal ci saa bopp dimbali ma ci sama diine ba sàmm ko tekke ne maa ngi turu yàlla di ko ñaan mu dimbali ma ci lépp lu ma jaaxal muy li aju ci sawa kër mbaa saa doom mbaa lu ma jaaxal ci alal juma leen yore teg ca ne yàlla ñaan nga may ma loo dogal ci man rek sama xol sedd ca te la ngay dogal ci man nga defal ma ca barke ba loo yéexe rek ma xam ne yéexe gaa gën loo gaawe itam ma xam ne gaawe gaa gën ba du ma fekk loo yeexe may mu nga gaawe ko mbaa loo gaawe may mu nga yeexe ko yow nag yaa fi ëpp yërmaande ñëpp ñëpp ñaan googu lay wax bu dee génn këram moom mi nga xam ne daa gis ne ay boroom daa bari ak dundu jafé ko mu bolé ci nak sa yu sëlmalee julik aljuma wax ñaan gi tambalé ci allahumma ya ghaniyu ya hamidu ba ci wa aghnini bi fadlika hamman siwaka moy yalla yow mi nga xamné jeexalé wo dara yow mi nga xamné yaay ki ñu ko la sante waye ñépp la war a sant yaa sos mbindeef yi ba ñu amut gannaaw bi ñu demee baraaf yaa leen di dekkalaat delloo leen mel ne mësuñoo ñàkk yaa bari yërmande yaay kii sopp say xeej yàlla yow mi mel nii may ma lu lew a lew lu doy sëkk ba du ma jege lu araam dimbali ma ci ma sax ci topp la ba duma la mooy mukk jox maa joxit ba doyal ba duma geesu keneen di sàkku ci moom dara sa ngëneel daal yaatu na jox ma cee jox ba doyal doyal ba duma soxlaal keneen dara ñaan googu na sax ci di ko wax gannaaw bu jullee jullit ajjuma ba sëlmal yàlla musal ma ci lépp luy ñagg-ñaggi xol ak njàqare musal ma ci tële ak lot musal ma ci nay ak ragal musal ma ci yenn bor yu ma ëpp doole musal ma ci góor ñi ëpp ma doole not ma ba di ma jëmali foo xam ne duma ma gënal ñaan googu di allahumma inni ahudu bika min alhammi wal hazan ba mu daanoo ñëwoon na ca gannaaw ñi dellu indiwaat ko waaye moom moom nag ñaan la gu gàtt te mata fonk lool lool ci ku ame ay bor walla muy faral di yëg ci xolom nu ko neexut wala yitti àdduna yi mel ni day xaw a jafe ci moom ndax dafa am xadiisu abi saïd mu wax ne ku ñu wax abu mata dafa daan toog ci jàkka ji ci waxtu yoo xam ne du waxtuy julli abu sa'id ne am ben bis yonante bi fekk ko ci jakka ja noné ci waxtu wo xamni ne du waxtu julli yonante bi ne ko waaw abu umama du tax ma gis la ngay tok ci jakka ji ci waxtu wo xamni ne du waxtu julli mu ne ko xana rek ay bor yu bari yu ma jaaxal ak ay yitte aduna ki ñag-ñagi xol yu ma jaaxal rek yonent bi ne ko teema laa jàngal loo xam ne soo ko waxee yàlla dindi sa ñagg-ñaggi xol fay say bor du ma la wax looloo mu ne ko aha wax ma ko kay mu ne ko boo xëyee ak bu ngoonee waxal allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ba ni mu daanoo nga gis ko nii ci biir téere bi abu umaama nee na naka ma ko def rek yàlla daal may tàggaleeg lépp lu nekkoon ci saa xol ci rekk ñagg-ñagg daal may fayalit saa bor yépp yépp yépp deseetuma benn bor kon nag ku yàlla teg ay bor saye rekk mu farlu ci ñaan googu di ko wax suba ak ngoon mën na suba gune mu wax ko yetti yoon ngoon gu ne mu wax ko yetti yoon mel na ne moom lu jàppandee jàppandi la ndax ñaan gi guddut mu farlu it bis bu ne lu néew néew mu julli ci yonante bi téeméeri yoon te yem ci yonante bi boolewaale ci waa kër yonante bi bu ne allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi baax na bu ci boolee wa sahbihi mu gën a baax bis bu ne itam na fexe ba wax allahumma aghnini bi halalika han haramika wa bi tahatika han ma'siyatika wa aghnini bi fadlika han man siwaka mom nak waxu ci ben lim waye man nako wax yetti yon bis bu ne mbaa mu def gannaaw julli farata gune mu wax ko yetti yon won nañ ko ci gannaaw firi won na itam baat yooyu ak moom mi yàlla def mu yenu ay bor yu bari te bari ay jaaxle nay bari jéggalu yàlla ndax lu bare bari ci xeeti jafe-jafe yi bàkkaar moo koy waral kon bis bu ne lum néew néew na jéggalu yàlla téeméeri yoon bu ko ëppalee nag lay gën waaye téeméeri yoon yi moom bu manqué te it bu dee jéggalu yàlla maanaam bu dee sàkku yàlla jégal ko ci boole waale ay waajuram ak mboolem jullit ñi ni ki mu wax allahumma xfir lii wali walidayya walil muminina wal muminaat wal muslimina wal muslimaat al ahyaai minhum wal amwaat mooy yàlla yàlla nag ma jégal jégal sama yaari waajur jégal mboolem jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ñuy dund ak ñafaatu saa yu génnee ci këram ngir soxla itam bu mu fàtte lañ ko waxoon ci gannaaw ne ko dee ko wax boo dee génn ci sa kër